wasahida lii bi anni sakartuhu bi haasihi alqasidati wa bi annahu sakara sukuri lahu biha min sahbaani haami balsasin mbokk yi noo ngi tekkiwaat xasida goo xam ne Sëriñ Tuubaa ko bind ci ama balsas ci weeru saxbaan weer yi ñu nekk balsas nag mooy boo jëlee baa gi moo lay jox ñaar laam gi moo lay jox fanweer soo ko booleeg ñaari siin siin su tooy si su wow si yëpp dalay jox rek ndax siin su wow si 300 la siin su tooy si de muy mille trois cent trente deux ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy at mu Cheikh Abdoul Ahad gane jamono foofee ci njaarim ci lu baraka muy at moom ci la ko sëñ bind ci weeru saxbaan xasidi gi nag lépp sant boromam ci xéewal yu ko defal sant la ci xéewal yu mu ko defal moo tax daan ko wax sax ci tarjumaan bi mu ne maa ngi tàmbali sama xasidi gi ci turu yàlla arrahmaani buur bay xewlaa kon bépp mi def ci àdduna arrahim tey ajëram ko soob ci àllaxar wasalla yàlla na julli allah yoo yàlla ala sayyidina ci kaw sunu sangi muhammadin toro na ñëw ba ci ñoñam muy waa këram ñëw bi ak sahabaam bépp wasalama ta nga dolli kóolu tasliman dolli kóolu mu ne gannaaw bi yàlla maa ngi sàkku ci yow nga julli ci kaw kii nga xam ne mooy sunu sang bi toro mooy salaatu googu noonu na ñëw ba ci waa këram ñëpp ak sahabaam yëpp ta nga dolli kóolu ak dolli kóolu mu mun yow yàlla wa sahida maa ngi lay ñaan nga seedal li ñeel ma ne bi annii man dee sakartu wa sant naa la bi hasil xasida te ci gii xasida kon yàlla la wax na ko na nga ma seedal ne ci xasida gii dee sant naa la ci moo tax mun wa sahida yàlla na nga seedal wa sahida na nga seedal lii ñeel ma bi annii ne man sëñ de waaye déglu rek ba tey nag ma seedal ne wa bi an annahu naka yow it kat yow yàlla sa sakkara sant nga sukkuri sama cant gii nga xam ne moom laa cant loxo jëmee ci yow bi ci xasida gi <laughs> ma def ko min saxbaani ci weeru sax baan saxbaan ama balsasin te mooy 1332 ci gaddaay yonent bi salaay salaam kon wax na yàlla na kon nag ma seedal euh, cant gi ma la cant ci gii xasida gi waaye nag ma seedal ba tey maanaam na yow sant nga cant yi ma cant la maanaam sëriñ bi nu mu cante yàlla yàllaa ko ko seedal waaye yàllaa ko seedal na ko sëñ Tuubaa cant nga ma ci xasida gi xam ne kon kon ku yéeme la

dama koy wax ñëpp dégg ko aw ma ci lam-lame aw ma ci ragal de te du ma ci tiit mukk nag yàlla rek yàlla seede naa loolu de te moom yàlla moom wammaa la jengal na aljaahidu koo xam ne aji weddi la li si waa naxu ya ma jëm ci fudub san wàll ne képp ku weddi yàlla maanaam yàlla du koy doxadal san wàll moom dootu ko soxla jéng jëm ci man déedéet <laughs> yàlla da koy doxadal fu mu toll mën naa dem fu ne di fa foye waaye man déedéet du ñëw ci man mukk moo tax mu ne wa maa la moom yàlla jengal na aljaahidi koo xam ne aji weddi la li si waa naxu yeg ma jëm ci fudu sama wàll mu daal di ne xalimtu xam naa xalimtu nag foo ko jàngee rek ci xasida yi mooy la ci toppoon dañ ko fa xasfee mooy yëqiinan mooy xam xam naa xam-xam bu wóor xalimtu xam naa xam-xam bu wóor ne an na la naka yàlla istara jënd na min ci man maa la nga xam ne baaxaxoo jaayoon naa ko ko ne ci man te mu jëlee ko ci man bay xan njaay la moo xam ne nag sattara mooy suturaales na ko nga xam ne léegi sama digg ak yàlla rek la ñu ñaar ko xam xam na xam-xam bu wóor na daal yàlla moom jan na ko la ma ko jaayoon moom waaye njaay la moo xam ne nag leen ko wax benn benn dama ko sutural yàlla moo ko kon loolu ñun duñ ko jéem a sànge moo tax ma ne alimtu xam naa xam-xam bu wóor ne ana yàlla istara jënd na min ci man maa la nga xam ne baaxaxoo jaay naa ko ko xanee ci man mu jëlee ko ci man bay xan jaay la moo xam na sa tara suturalis na ko baye na leeralal na jàngal na baye na waxal na ma <laughs> baye na leeralal na nañ ñi lii ñel ma al alimu yàlla muy xamaakoon te fekk xam-xam yëpp wal xabiru tey aji dañ kumpa ji gis na lépp tab yii na mux ni leeralu koo xam ne aji doylu la doonoo yées na sax doonoo jomb na sax ab tadbiir di seetantal yàlla ak mbindeef déedéet xam nga mbindeef mooy toog nga bëgg mu bindal la dara muy seetantal ne nii laa bindee wala bu ma defee nii mu yàqu wala bu ma waxee nii mu yàqu bu ma ko jëfee nii mu yàqu waaye yàlla nee na yàlla yàlla mi nga xam ne xam na lépp ba nëpp gis lépp moo a leeralal leeralal koo xam ne ku doylu la nga xam ne yàlla lu muy leeral du wuti ay jumtukaay du ko gëstu ci benn téere déedéet moom du seetantal ku dul mbind ku dul yàlla nag mën ngaa seetantal man nañ laa laaj dara ngay seetantal wala nga ñu laaj la am masala nga dee taxawal ma dem téere bi diw sàngam <laughs> yàlla moom tabarkalla sëñ Tuubaa daal kenn moom mu ne béy na leeralal na li ñel ma alalim yàlla muy xamaakoon bi wal xabiru tey aji dañ kuppa ji tab yii na mux ne leeralu koo xam ne aju doylu la doonoo yées na sax ak tab biu seetantal yàlla du seetantal yàlla loo ko laaj mu jox la ko xaada mat na illee jëmee ci man alxelma xam-xam wala xalaala ak yu dagan yi wama ak la nga xam ne ixtaara tànnal na ma ko lii ñeel ma tafalaa idlaala déet may riir yàlla moo nga xam ne mooma wom mooma leer la loolu mooma womatal xam ak yu dagan yépp waaye li nga xam ne tànnal na ma ko itam jox na ma ko te nee na lu muy bëri bëri xam-xam ba yu dagan yi yem ma jox lu muy bëri bëri du ma beew de du ma réer mukk du ma réer de xaada womat na illee jëmee ci man alxelma xam-xam wal xalaala ak xéwal yu dagan yi ma ak la nga xam ne ixtaara ixtaara tànn na ko lii ñal ma falaa idlala déet may réer nafaxani jëriñ ne ma anafin yàlla muy aji jëriñ ji yàlla mi nga xam ne ku am njëriñ moo la jëriñ nee na ne ma bil mu baaxi ci yi nga xam ne mooy yu dagan yi yàlla yim daganal yim daganal yépp ci ay xéwal nee na jëriñ na ma ci ba ma yëg ne jëriñ na ma ci wa bax doo ci gannaaw bi ma jëriñee ci yi nga xam ne da koo daganal istaraahu jand ko moom yàlla moo ko jant bi rabbaha ànd koog tonaxu ga xam nga fu ne Serigne Touba yàlla da ko jox xéewalam yim dagal yëpp daganal yëpp da ko joxoon loolu sax njëkk muy dem géej gi doon na wax wax yu mel noonu waaye léegi bi muy dem ci géej gi am yu mu jaayantoo nag yàlla comme xéewal yëpp moo ko moom sañ na ci jëfandikoo bu ko neex moo am yoo xam ne da ko tànnoon na yii dama ko xaraamal ci sama bopp du ko lekk donc nag moo ko moom yàlla may na ko xéewal yëpp léegi nag yàlla jënd ko jox ko njëg goo xam ne boo fekkoon na ci misaal dag ne yàlla bi mu jëndee jëmmi marchandise ma ma nga xam ne da ko araamaloon ci boppam ne du ko lekk bi ko yàlla di jox njëgga benn bu ci nekk bu waroon a jot bu waroon a jot bu waroon a jar téeméer un milliard lañ ko koy fayee benn bu ci ne xam nga kooku tono gi kenn xam nu muy toll moo moom xewel yàlla ko ko jox ba noppi waaye mu am yu neex yoo xam ne dana du ko lekk ngir la note ko bakkanam ngir lan tubaab yi nga xam ne moom la ko yàlla boolee toon te sabab bi nga xam ne bu jëfandikoo yooyu rek ak bànneexam man naa topp bakkanam ak bànneexam waaye nag mu jaay loolu yëpp yàlla na ko yii moom du ko lekk léegi yàlla jand ko ba noppi nag jox ci njëg goo xam ne bu fekkoon ne benn bu ci nekk téeméer la yàlla moom un milliard la koy fay njëgg nafaxani jëriñ dama anaafe yàlla muy aji jëriñ ji bil mu baax yi ci yu dagan yi wa bax doo te bi ma jëriñee ci yu dagan yooyu istaraahu jënd na ko moom yàlla bi ra baax ci tonohu nga xam ne dafa am yoo xam dama ko xaramaloon sama bopp léegi nag jaay ko yàlla léegi nag yàlla jan na ko waaye nag benn bu ci nekk moom pilis par pilis la <laughs> tonowu tonowu tonowu tonowu gu bari bari la nee na allahu yàlla mën na xéewalee na alee ci woon biir asmaani njëggi gis nga wax na njëggi nee na yàlla moom a xéewalee njëggi taya ba teeyal na lii ñeel ma alxamaru dudd ga kal asmaan asmaani ni ki jamono ji jamono yam may jox njëgg ba léegi mi ma koy jox sama dund nee na dafa teey amatuma lenn lu may jaaxle lu may jàq lu ma soxla rek am ko ci yàlla allahu yàlla xaadoo mat na illee jëmee ci man min yawmil ahad ci bisub dimanche bii mawaahibal baaqi ay mayam moom yàlla bi fee sax ba faw al muqaddami moom mi nga xam ne mooy aji jiital ku ko sopp al ahad mooy kenn nee na yàlla womatal na ma jëmee ci man ci bisub dimanche bii mawhibaam ay may buñ na mawhiba ci yàlla mooy mayu mag yàlla womatal na ko ay mayam moom mi nga xam mooy ki fee sax waaye mooy aji jiital ku ko sopp waaye mooy ki fee des ba faw waaye nag mooy kenn itam kon allahu yàlla xaadoo mën na ilee jëmee ci man min yowmil ahad ci bisub dimanche bii ba yeneen bis yëpp la ci jublu rek mawaahibal baqi ay maye moom yàlla mu fee sax ba foofu al muqaddimi te mooy aji jiital ku ko soob al ahad mooy kenn malaka ni moom la noonu faal ji nag mu ci kanam maa loo xam ne ax jala gàccal na sax al almulookaa buur yi bilaa liqaa in ci loolu ñuy daje teg man ñoom buur yi waa ax jala te gàccal na sax asulookaa sóobu ci yoonu buur ya mooy moo xam nekk premier ministre gis nga ñu nekk ñu sos ci buur yi eh, ni ñuy amee xaalis waaye nag lépp beew ci kaw beew rek la ñuy tegu nee yàlla moom la loo xam ne nag gàccal na buur yi buur yi ci boppam te dootuñ dajeeg man gàccal na leen de waaye nag ñi nga xam ne dañoo sës buur yi sax di liggéeyee ci pegg buur yi nga xam ne xaalis bi ñuy am kenn du xam nu muy toll nee na sama may biñ ci gisoon benn rek gàccal na leen dañ naan amuñ dara malaka ni moom loolu ma maa loo xam ne ax jala gàccal na almulookaa buur yëpp bilaa liqaa in ci lu ñuy daje teg man wa ax jala te gàccal na sax asulookaa suubu seen yoon ya mooy ay premier ministre yooyu nga xam ne ñoo jege buur yi faayal jaa nekk ni li ma yàlla moom loo bisurun mooy mbégte waxel mun xam-xam bu bari wa baqaawun ak di fi sax rek ah wa baqaawun ak des ubbi daa goo xam ne saxalees na ma ko in qaadat wommatu na lii ñeel ma bi na fee njëriñ yëpp fa ba leer na nañ safiya sama seer la man sëñ Tuubaa nee yàlla moom loo na ma loo xam ne gàccal na buur yi ak ñu sóobu ci seen yoon yëpp te dootuñ dajeteeg man moom loo na ma mbegte ak xam-xam waaye nag ma di fi sax ba faw du fi mos a beekoo te njëriñam yëpp nee womatu nañ ñëw ci man te nee na leer na nañ sama sell sell gi ma sell daal leer na nañ moo tax yàlla moom la noonu bisirun mbékk wa xel ak xam-xam wa baqaawun ak des goo xam ne ubbi daa saxalees na ma ko in xaadat womatu na lii ñeel ma bi na fee njëriñam yëpp fas fa ba daal leer na nañ safee sama sell loo ñeel na ko moom yàlla dong sukkur yi samay cant min assasine li ko tàmbalee assas mi 1301 at mi nga xam ne ci la sanc yoonu murit bi la ci la nga xam ne xat xaadoo womatal na ma ko moom yàlla lii ñel ma bi xaami balsasin ci xaama balsas xaama balsas mooy at mu suñu blaat gane jamono mooy 1332 ci la bind xasida gi ci weeru soxbaan nee na li ko yàlla matal ci xaama balsas 1332 nee na ñeel na ko moom yàlla maanaam yàlla rek lay cant ndax li ko tàmbalee asas ba 1301 ba 1332 li ko ci yàlla jox yépp nee na yàlla rek lay delloo càttaka ndax li ko ci yàlla jox li ko ci yàlla womatal daal nee na ko tàmbalee asas ba bal sa lépp cantam yëpp ci yàlla rek la koy delloo moo tax ko sukóor yi samay ko tàmbalee euh, cant bi la si ca la nga xam ne xat ko léegi ñeel ma moo womatal nag bi moom yàlla ndax wa moom yàlla de mooy ki baax ki alba alwahaabu mooy may bi loxoo ñeel na ko iyaabu samak dellu si wala loxoo ñeel na ko saxaabu samak dem nee yàlla ñaan ko ndax moom moo tudd alwahab mooy ku baax tey may waakoon bi yàlla moo mee de bu may dem ci moom rek laa jëm bu may dëpp itam ci moom rek laa jëm lii yëpp da koy wax waxi ku nekk ci tukki bi rek nga xam ne buy dem ci tukki bi waxoon na ne ca mooxi bu naafee fii ka sahaabi fii ka iyaab yi nekk na ci yow yonente bi samak dem ak samak dellu si yëpp kon dox bi mu dox jëm ci yàlla ci yàlla rek la jëm bu dox jëm ci yonente bi itam yàlla rek la jëm ndax yonente bi mooy bunt bi yàlla bi ci li ñu jaar jëm ci borom bi tabaraka taala moo naa ko wa innoo naka moom yàlla alwahaabu moom mooy mayaakoon bi la woo ñeel na ko al iyaabu samak dellu si wala woo ñeel na ko saxaabu samak dem ba tey su kóoruhoo dana ko cant moom yàlla xomri samak dund gépp wa maa la te jengal na aljaahidu koo xam ne aji weddi la li xëyri nax yé ma jëm ci fudul sama wàll wa nii mooy est ce que yàlla mi nga xam ne alwaahidu mooy kenn nee yàlla sama dund gépp da koy cant parce que lu ko waral képp ku weddi yàlla yàlla jengal na ko nga xam ne du jublu sama wàll mukk daal di bàkke yàlla kañ ko ci fiixlu maat lil mat ne est ce yàlla mi nga xam ne mooy kenn moom mi nga xam ne amul genn ñaareel kenn képp la moo tax mu ne sukooruhoo samay cant moom yàlla ñeel na ko xomri yi sama dund gépp sama dund gépp cant yàlla laahu akbar sukooruhoo euh, ñeel na ko ak cantam maanaam sama cant xomri yi sama dund gépp wa maa parce que jéngal na aljaahir koo xam ne aji wéddal li xëy na yow mu jël sama wàlla waaye ni nga xam ne est-ce moom nga xam ne kenn képp la mu subhaana rabbika tudd na ma sela buur bi rabbil alamin moom mi nga may toon wala lépp loo xam dañu ko meelal ci ay doom ak ay caaju wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñu yóon ña wala amatu melu sax tàkk tarafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin nga xam ne bi ndefi yàlla nanu yàlla defal dégg topp subhaanaka laa ilma lana ila ma xalamtana innaka antal alimul hakim jërë ngeen jëf